docteur ñu ñëw euh, suñu dëkk. Euh, voilà mm. fu mu toll nii mun nañu <laughs> wax ne <laughs> Sénégal euh, voilà l'actualité est très fournie mm. surtout par rapport ak élection yi nga xam ne. qui mm-hmm, mm-hmm. se sont succédé wax def nañ fi. Mm-hmm. élection locale élection législative yi remaniement poste premier ministre. mu ñëwaat président de la république aussi teg gouvernement bu bees. mu indi aussi ay polémiques. naka nga jër fu mu toll nii situation politique bu Sénégal professeur. waaw elle est grosse de maanaam fi mu nekk ni situation politique moom euh, xaw naa jaxasoo de waaw jaxasoo la euh, ñu ngi ci jeexi jaaxa mm-hmm. euh, ñii naan ñi wax ay amnistie maanaam baal mm-hmm. ñoo xam ne bokkoon nañ ci langue politique bi mm-hmm. ñii di wax nouveau gouvernement ñii naan kii dafa bëgg a dem troisième mandat bref comme ni nga ko waxee la situation elle est un peu inquiétante quand même parce que kenn xamul exactement nan lañ ciy duggee ak nañ lañ ciy génne waaye li nga xam ne mu ngi xeeñ ñi daal a neexandiwul lool pour la démocratie en tout cas. de mhm. manière générale. Mhm. Mhm. Euh, jeu est-ce que mun nañu tuddee li nga xam ne moo nekk jeu de dupe euh, par rapport ak jéego yi wala sax euh, décision bi le président de la république Macky Sall bëgg na ko jël par rapport ak li nga xam ne mooy am si amnistie Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall wala mun nañ si gis rek benn ouverture langum politique bi professeur et et ça profite à qui finalement. à eux un seul les politiques ni à toi ni à moi <laughs> loolu moom c'est absolument sûr jeu de dupe euh, waaw mais xam nga jeu de dupe boobu malheureusement moom moom mos a régenté moom mos a gouverner rapport bi nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu politique moom la ñu am ak ñun ah. mhm. ça a toujours été un jeu de dupe ça veut dire que la morale ah a toujours changé de terme elle a toujours changé de forme elle a toujours changé euh, d'énoncé selon la posture qu'on occupe par rapport au pouvoir loolu moom bu ci kenn sonn moo tax man souvent dama ne écoutez man condamnation morale man dama cee mm-hmm. maanaam nekk fii c'est pas bon parce que ce n'est pas conforme a ça n'a jamais été embarqué dans les relations yi nga xam ne moom la politique yi am par rapport aux citoyens donc ça a toujours été un jeune dupe et ça continuera éternellement à être un jeune dupe man du ma nekk un adepte de la morale de circonstance mënoo fi nekk ni tey lii baax na ah. parce que fi nga féetee ça va dans le sens là ëllëg li nga ne ni bon na et cetera ça veut que au lieu nga taxaw analyser objectivement les faits indi ci des réponses ou juridiques ou en tout cas conformes à la démocratie mais da ngay jël suñu dund yëpp nga tënk ko ah, agendé ko ah, maanaam wéeru ko ci horloge biologique ñi nga xam ne ñoom ñooy dox ci wàllu politique selon qu'ils sont donc ce sera éternellement un match nul parce que ñaari lecture ñoo ci mën a am mm-hmm. bu la neexee comme ni nga ko waxee nga ne avancée démocratique pourquoi avancée démocratique parce que amnistie mooy lan écoutez bala terre mm-hmm. nañ def table rase xool yi nañ jubóo si su ko defee ñu ànd dem d'ailleurs renforcement de la démocratie lay doon parce que am na ñoo xam ne boddi woon nañ leen delloosi nañ leen bu la neexee nga am lecture boobu mm-hmm. mais euh, nous serions d'une éclatante mauvaise foi bu ñemee foofu parce que on doit se demander pourquoi maintenant et à quelle fin et répondre à ces deux questions te montre que ña nga xam ne ñoom ñoo ko yëkkati ah, parce que xamaguñ ndax loolu dinañ ko acté ou pas mais ñu yëkkati débat bi en réalité est-ce que avancée démocratique parce que le contexte de 2011-2012 n'est pas le contexte de 2022 et donc en tant que tel en principe bu fekkee amnistie ay liberté lay yokk démocratie lay yokk delloo ku jege ñi nga xam ne dañ leen boddi woon waaye am na noo koy defee ak contexte bi nga xam ne ca la ñu nekk mën nañ taxaw ne effectivement marché du parce que ko def réduction des cartes bi nga xam ne moom moo am sur politique moom moo ko obligé à trouver des solutions et des mesures alternatives. finalement euh, amnistie euh, finalement bi ñu amnistie ku mel ni comme kii di Karim ak Khalifa Ababacar mhm. des voix ku mel ni comme Ousmane Sonko nga xam ne fu toll nii mën nañu wax ne c'est la principale force de l'opposition. c'est même pas c'est ah politique du arithmétique. ok politique du mathématique. Mm-hmm. du ma du ma du ma expert science politique waaye. nañ def nang xam nga raisonnement bi consiste à dire. Mm-hmm. bon. Euh, boo indee euh, Karim Wade ak xalifa Sall dina wàññi doole ki nga xam ne moom mooy le principal euh, opposant mm-hmm. parce que yaakaar nañ ni kooku loolu dina jur un éclatement et un émiettement des voix boo xam ne ki nekk ci nguur gi moom lay profiter calcul mathématique la mm-hmm. logiquement noonu la war a mën a demee parce que da nga naan ah diw mooy xalifa Sall am na lu mu yor ci ay voix. Mhm. Euh, Karim am na également benn plus ou moins benn base électorale et bu fekkee dangaa jël loolu nga battriat carte bi séddale Ousmane Sonko séddale Karim séddale xalifa euh, seddalee ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi il est évident que ça va se redistribuer du nekkati benn mën ngaa yaakaar ne kon di nga tasaare force yi boo dootul cristalliser autour d'un seul waaye mhm. attention au fait que ki nga xam ne moom moo taxaw foofa new ma ci jugement moral je suis dans un constat de fait mhm. fi mu taxaw noonu la ko ko may newul x newul y mais dafa taxaw foo xam ne dafa capter dynamique souterraine bi nga xam ne volonté de changement bu méngoog li ñu doon wax ci wàllu géopolitique sànq mooy ki nga xam ne actuellement moom mooy Ousmane Sonko donc boo fàttee dynamique sociale profonde boobu aspiration à être gouverné autrement le l'idée que cette pratique politique là bii daw depuis l'indépendance et cetera dafa jeex parce que moom lu mu articulé ci discours hmm. boo déggee il dit système système système il peut y avoir beaucoup de démagogie chez Ousmane Sonko il peut y avoir mu ne finalement il s'est retrouvé dans le système. waaw même waaw mais en tout cas je dis si au niveau du discours xam nga loolu jugement la. Ah. même bu nekkee ci système bi. je dis même bu fekkee dégloo ma jàpp même bu fekkee il est démagogue même bu fekkee am na un côté populiste. Mm-hmm. waaye ça a réussi politiquement ça a mm-hmm. parce que ça a loo xam ne attente la woon de la jeunesse. yaakaar ne est-ce que moom la ça je ne suis pas sûr ah. est-ce que il incarne toutes ces valeurs là je n'en absolument pas sûr mais je sais que politiquement il a eu le mérite de capter cette profonde aspiration au changement de la jeunesse est-ce que moom il correspond à l'homme idéal loolu beneen débat la man dugguma ci mm-hmm. waaye li ma mën a constater mooy que politiquement toute sa force vient du fait que quand il dit anti-système anti-système xale yi sama doom yi il se retrouve dans ce discours-là. Mhm. parce que à tort ou à raison ñoom dañoo jàpp ne am na une façon de faire la politique boo xam ne moo fi am indépendance ba léegi waaye ñoom Ousmane Sonko dafa correspondre ak ñoom li ñu gisee li ñu war a soppee ak ni ñu war a doxalee politique. donc bu fekkee da ngaa jàpp loolu. mu nekk une constante. tu te rendras compte que la variable Khalifa et la variable euh, Karim ne changeront pas forcément et nécessairement laa doon nañ ci tey nañ def naan. tout à fait le cumul de fonction mu nekk discours wala sax euh, programme bi nga xam ne euh, Ousmane Sonko wàllum euh, coalition jot na waxoon na ci mais finalement dafa mel ni comme loolu daf ko rattrapé parce que am na mm-hmm. ñaari maire député yoo xam ne rek. Mm-hmm. wàllum cumul de fonction. waaw rattrapé na leen te finalement ñoo waxuñ ci lu leer. absolument non seulement loolu sax mais am na bari yoo xam ne ils sont dañ nekk en contradiction avec mm-hmm. eux-mêmes. donc euh, loolu dafa méngoo ak li ma la wax ça veut dire que mhm. xam nga boo gisee j'ai mis des réserves en disant est-ce que est-ce que am na ay pratiques yoo xam ne euh, ñoom waru leen Mhm. ça veut bu ñu amoon intelligence politique maanaam ñu xam exactement seen doole fan lañ jógee seen doole jógewul si ne le leader dafa am euh, un superman mhm. il a des pouvoir il a des dons surnaturels déedéet mais dafa jóge rek fi ma la wax donc yaakaar googu la ndaw yi am mhm. te comme yaakaar boobu la ndaw yi am ñoom seen taxawaay moo waroon nekk fexe ba lépp loo xam ne bokk na ci liñ doon xarab le cumul des postes bokk na ci liñ doon xarab yàq euh, yàq jikko yi en matière de pratique politique bokk na ci liñ doon xarab le détournement des deniers publics ñoom dañ ci war na set wecc mais malheureusement seen pratique au quotidien dafay conforter l'opinion dans l'idée que finalement amul kenn koo mën a gëm parce que ils diront toujours ñëpp benn la donc ça je reconnais que c'est des erreurs et je l'ai déjà dit yoo xam ne ñoom waruñ ko war a nangu ñu nekk au pouvoir buñ ko defee ñenn ñi nañ ne ah li fi newoon la ñuy wéyal mhm. ñoom noonu lañ mel ils ne peuvent qu'agir en conséquence mais man bu ma taxawee ma jaay au pays l'homme intègre ou en tout cas euh, celui qui va gouverner de façon intègre cumul des postes de fii jógee corruption de fii jógee familiale de fii jógee larbine de fii jógee mais dans ma pratique de tous les jours y compris ci niveau de responsabilité yi ma amagum en tant que maire en tant que député yooyu da fi war a parce que mënoo dénoncer cumul doo pare nga yegg si gis ne dans ton camp il y a cumul que da nga raté yow complètement li taxoon ni ñi investir le seen confiance. tout à fait ah. l'Assemblée nationale pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal professeur su ma juumee nga rectifié ma mm-hmm. ñu euh, l'opposition ak ñi nga xam ne mooy le le pouvoir mun nañu wax ne euh, ñu wante dëgg. Ah, surtout mm-hmm. ak ah. voilà euh, mm-hmm. tey jii naka nga gisee cette assemblée de rupture ak leur première session voilà d'entrée à l'Assemblée nationale ak dérive. où elle va consacrer l'apogée de la démocratie sénégalaise ou bien elle la la ndeysaan maanaam dina yëkkati démocratie taaral ko jëmal ko kaw mu yegg foo xam ne xëy na mosuñu fa yegg ci wàllu jéego wala mu delloo démocratie foo xam ne mosuñu faa yegg également mm. ñaari yooyu rek a fi nekk waaw mm. parce que mu nga presque équilibre des forces la mm-hmm. boo xoolee voies yi ko waxee pratiquement benn la mm-hmm. waaye bu fekkee dañ koo jàngee comme avancée démocratique dañ ko jàngatee comme ne fi mu nekk nii hmm, mm-hmm. amatul lenn loo xam ne dina ñëw jàll comme lettre à la lu fi ñëw dinañ ci teg suñuy ko ut ay expert ñu caytu ko li nga xam ne moo gën ci réew mi ñu bàyyi mu jàll li nga xam ne dañ jàpp ne day nasaxal démocratie suuxal réew mi ñu dindi ko bu dee taxawaay boobu la mais évolution démocratique bu extraordinaire nga fiy gis waaye bu dee nag au contraire da nga ne man je suis toujours l'opposant qui sera toujours l'opposant et en tant que tel lu jógee fële xaw ma baax na xaw ma bon na de manière principielle dama ciy dire non xeex yi ñàkk fayda yi nga baal ma ci wax ji lañu fiy gis te finalement loolu dafay delloo démocratie bi ginnaaw donc ñaar yooyu yëpp la te ñaar yooyu yëpp bi leen conditionné mooy gars am maturité xam les enjeux et xam également les attentes yi nga xam ne moom la peuple bi investir en eux mais encore une fois où on avance où ce sera l'apogée d'une démocratie portée à son degré le plus extrême d'avancée ou bien ñu dellu véritablement à des années